bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci suñ fukkeelu jotaay ak ñett ci yi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak yéen ci biir weeru koor wi di ci wax yii tax yàlla bëgg ñu fukkeel bi ak ñett ci yii tax yàlla bëgguñu ñu mooy ar rifq mooy ak ndànkal ak ñewant ak nooy yahud yi dañoo baaxoo woon bu ñuy nuyu yonante bi sallallahu alayhi wa sallama au lieu ñu ne ko asalaamaaleykum muy tekki yàlla na jàmm nekk ci yow waaye dañ ko daan wax assaamu assaamu aleykum te assaamu li muy tekk mooy ak ak dee mooy yàlla na nga dee ñoo ko ci jublu woon ndax bañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag benn bis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak soxnaam ab yahud romb ko daan na yonante bi assalaamu aleykum mooy yàlla na dee nekk ci yow yàlla na nga dee Aïcha nee na loolu naqari lool ma ma tontu yow ba ne ko aleykum saamu wallaanatu yow it yàlla na dee gi nekk ci ak rëbbum yàlla merum yàlla na yonte bi ne ma Aïcha dafa ndànk yàlla kat ku ku ku la ku ñëwant maanaam ku bëgglu nooy la ku ku nooy daal la ku baax ku lawet te it day bëgg kuy lewetal ci mbir yëpp yàlla ku am yërmande la te di ñëwanti jaam yépp tey day bëgg ku mel noonu nee na Aïcha daal na Aïcha ma netti leen nee na Aïcha ne a yonente bi sallallahu alayhi wasallam xanaa déggoo li mu wax xanaa déggoo li mu wax nee na yonente bi na ko ah kay dégg naa ko Aïcha waaye dafa ndànk rek ne ko ndax yàlla bëggul koo xam ne buñ ko tooñee day day fayu ba wis day fayu ba day day too day day tooññar bi bëggut tam koo xam ne day nekk euh, day day day jëfandikoo violence ci lépp bëggul tam ku ñaaw làmmiñ waaw daal na ko kii bi mu ne ma assaamu aleykum nee ko wa aleykum doy na waaw nee naa ko ak yow comme bu nit wax na asalaamaaleykum nag nga ne ko waaleykum yam ca la gën nag mooy waaleykum salaam wa rahmatullah wax lu gën lu ëpp lam la wax waaye waaleykum mooy ak yow yow dem na ko bi mu ne asalaamaaleykum nee naa ko waaleykum salaam man la ma wax man yonente bi yàlla dina ko nangu te ñoom nag lañ ma ñaanal ñoom yàlla du ko nangu kon loolu doy na ku njëre woon di yokk leneen daal na ko inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yuti alayhi maa laa yuti ala al unf yàlla ku ñëwante la ku teey la ku lawet koo xam ne daa bëgg ku lawet na moom te itam dina jox ab jaam cig lawet ak ci teey ak ci ndànk loo xam ne du ko joxe ci violence maanaam ci xët-xët kon ku bëgg yàlla bëgg la na bokk ci sabab yi nga fexe nekk nit koo xam ne da nga nekk rafiq nekk ku nooy di jëflanteeg nit ñi ci nooy lewet ci lépp nag say wax na nooy na lewet say jëf na nooy na lewet sa janq bi ngay liggéeyaloo ci kër gi say doom sa dongo yi ngay jàngal sa élèves yi ngay jàngal parents d'élèves yi ngay jëflanteel say wayjur say soxna sa borom kër ñi nga dëkkal ci kër gi muy say mag mbaa say rak say bàjjan ki ngay lo diko gas lo ma nga koy lo ma nga koy réparer lo ñepp del jëflante ak ñom ci rek sa même sa apprenté yi nga xam ñi ya leen formé da jëflante ak ñom ci rek boy rend na nga rend ci réq loolu daay nekk jikko ci rafet rafet jo xam yalla da ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam romb kuy rendi ab gàtt daal di jël tànkam bi teg ko ci kaw gàtt bi ngir bañ mu rëcc ba noppi nag di doo ko daas paaka bi yonent bi daal na ko yàlla day daa bëgg ku nooy kuy ñëwent mbindeef yi na ko bu ngeen di rendeeti na ngeen ñëwante li ngeen di rend waaw mënoon ngaa bàyyi xaat mi palaasam daa sa paaka ba mu ñëw nga doog a ñëw nag jàpp tëral waaye tëral ba noppi jël sa tànk teg ci kaw xar mi di daas paaka bi mu koy gis loolu mu bokk ci ci yërmande bokkut ci ñawant asalaamaaleykum wa rahmatullah